Sénégal 4 TV yow yaa ko moom ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Balla Gaye moom li mu wax mom non la fa démé sax xam nga ñun ñoo bëgg ñun ñun ñoo bëgg grand contre petit mais tamit grand contre petit deug la dalay fekk nga def dara. mais bu dee combat yu bees lañ bëgg tey Balla Gaye kon bu dee combat yu bees rek bëgg a bëgg a bëre bëre gaa yi bëgg a bëril euh, askan bi kon yaakaar naa si boo ñaa lay jël su balaa que boo nee Modou Lo mi si roi ne Eumeu naa moom ñaari yoon nga ne Tapha Tine ñu naa moom waaw foofu du bëreeg Ama du bëreeg Lac de Guiers kon bu dee combat bu bees la bëgg moom ah, tey bu dee Gris Bordeaux bëri naa moom tey bu dee combat bees la bëgg kon si booy yi booy ñaa lay jël yow limu mu li nga wax fen laa lay critiquer quoi parce que boo nee ak euh, kii ñoo ëpp ñoo ëpp talent gars yi Ama ak euh, Reug Reug non non Reug Reug mënoo koo tudd bàyyi booy ñaa Reug Reug mënoo koo tudd bàyyi booy ñaa bu dëgg texee di wax waaw tey euh, booy boo jugee si Ama. boo ñaar rek nga siy teg te boo si teg it Sa Thiès nga siy teg te Sa Thiès mën nañ ne ay Sa Thiès ay gargaar yooyu ñoo tolloo nouveau benn boo ñaar moo leen rawee tolloo nouveau moom ay ñoom kaga yi ay ñoom Sa Thiès lañu boo ñaar moo leen moo leen moo leen nouveau nouveau mooy maara raw nouveau maara raw guddi yi toll nii xëy na buñ bëriwaatee ku si nekk bu amatee benn combat dabante bi mun naa am wala jiitu ba tey am waaw mais bëgg naa leen sama gars yi su la nekk tey moom seen yaram dafa tàng ah, yéen a ngi doxal ah buuba nga ne yow Aliou Seye de nga jox nga jox kii nga jox euh, kii bi nga jox pouvoir ah. ah man moom wax dëgg yàlla kii laa jox pouvoir kii laa jox pouvoir bi euh, ñàkk jar bu dee moom ñàkk ngay ngay gisé moom gëm naa ne ñàkk mën na def Aliou Seye de lu lu garaaw. non rawul kenn Alioune Seye daa tar Alioune daa tarle Alioune Seye daa tarle mbëri du kese woon njëkk a bëri wala nga am am ay yenn victoire kii nekk champion la nekk champion la ay champion tamit waaw ay champion xoola classe gi mujjee ju jóge rek tey jii man su ma doon wax su ma doon joxee favori guddi yi ñu toll nii ñaq laa koy jox de xaw ma en tout cas daal ñaq. waaw waaw waaw si calaf bi moom def na fa lu am solo moom waaw daan na daan na nongoloo daan fa général waaw ñaan nit ñoo fa daan muy doomu dàngu ak pambay mu génn si calaf bi daan daan kii laay pitago champion la moom champion la waaw parax paraxam yooyu muy def des fois dina ko def génn si mais des fois moom mu kale quoi waaw te xam nga Alioune Alioune Seye moom dafa teey daa teey buy para para ba moom góol ko <laughs> ma loolu de. Pogba Pogba am na ñoo xamante ne comme fu ñuy toll ci làmb ah, buñ ci daanoo du yàq lu bari ci ñoom am na ci ñoo xamante ne comme par exemple ci combat bi ñuy wax ni Alioune Seye 2. bu demee jël ñaq jariñu bu ci daanoo du ko bu ci daanee du ko yóbbu fenn te bu ci daanoo mooy loolu ñaq jariñu ñi mu tëb moo bëri dem bëri jéeg Aliou Seye bu ci bu ci daanee day dem bu ci daanoo day taxaw bëri ak ay moroomam du ko wàññi dara booy ñaawa ngi nii daanu ci la degee lan la ko wàññi wàññiwu ko dara mu ngi nii di wax wax ay waxi Balla Gaye xel yëpp ci Balla Gaye la jëm làmb noonu lay doxee am na mbër yoo xamante ne boo leen jëlee boo ci da boo leen daanee du la yóbbu fenn guy gée ngi nii mi daan Siteu fan la ko yóbbu yóbbuwu ko fenn làmb daa am nu muy doxee gaan day leen wax ci esprit làmb te bañ a wax ci esprit yut bi no non Cissé xam nga xam nga wax wax euh, nit ñi dégg la dafa xaw a jafe nag loolu mooy problème bi xam nga des fois ma taxaw fii comme ne diw xamul dara mënul bëre du càgg ni ne mënul bëre boobu daf ko mënul kooku waxin la il faut léegi yow rek yow yaay am dégg-dégg nga dégg fi ñuy waxee parce que euh, li gars yi di wax chaque jour rek yàgg naa ko feex ma ne muñ toppee mbër naan ko ragal la waaw xëy na ñoom bëgg lu leen neex rek moo tax ñu naan ragal la mais buñ jàkkaarloo moom duñ ko wax c'est soo nee du ko yàq dara waxin la mais tamit làmb dafa am calcul. dafa am calcul am na yenn mbër yoo xamante ne ah, comme par exemple Ama Baldé Modou bu Modou Lô daanee Ama Baldé du wàññi dara Ama Baldé avantage bi Ama Baldé combat boobu avantage bi Ama Baldé moo fay am avantage làmb mooy demee noonu làmb mooy demee noonu booy Niang ah, la dëggeer gis nga daan bi ko la dëggeer daan lu mu ko yàqal amul dara lu mu ko yàqal noonu lay làmb di demee mais bu booy ñaar daanoon bu la dëggeer daanoon booy ñaar fan la la dëggeer jëm loolu mooy danger bi làmb chaque jour bu taxawee day am koo xamante ne moom bëggul defet mais bu amee defet du ko yàqal du bëri ci moom mais am na koo xamante nag kooku moom victoire rek moo ko war bu amul victoire rek day wàcc li garga di wax chaque jour rek làmb moom da ngay daan dem daanu xaar Wow, Paco gracias Mamadou ñu ngi delloo char ñu ngi delloo char bu wér a wér a wér alhamdulilah yéen am jàmm de waaw alhamdulilah waaw Ibu wax nga dëgg de ba tey rek baax na waaw noonu la waa jaa ngeen jëf yaa ngi si mbàjj yi de mu leen si mbàjj ñaari nopp yi waaye moo gën nekk na si jàmm waaw asalaamaaleykum naxum yéen a ngi am jàmm maa ngi di siyaar ah. yéen a ngi am tawféex maa ngi di nuyu di leen siyaaree ñëpp bàyyi ma kenn ku lim da ngay juum ah. ñëpp Bouba Ibrahima ñëpp Fallou da ngaa changé wala nu mu demee noonu Fallou da ngaa changé profil changé tur bi ah. mais voix bi laa xàmme de wala du Fallou nekk jàmm Ibrahima yaa ngi naan xaw kër sax xam nga lu mu mën xam nga lu mu tële ah ibrahim ko wax rek comme comme mbër nga ko wax xam nga lu mu mën a xam lu mu tëral rek dafa mel da nga da nga laal dafa mel ne dara ma tër mbappat yow mi waaw ba leen di nuyu di leen le ah jam wa si jàmm. <laughs> waaw lay bëggee di la ziaré bu baax a baax baax ñu lay bëggee bu baax non ñak dama ko xam xama soreew maag moom mom mo ngi dëkk prexis sam-sam ak caara rek digënté sam-sam ak caara côté wëtir ba yoy dama koo xam bu baax non dañoo doon mbappatandoo rek mais yàlla def na mujj ñoo mosuñoo laale moom mais laala leen sama ñaari poulain waa daan na sama frère bi mbapat euh, finalu lour daan si sama beneen frère sama beneen copain demi final bi final sama rakk bi daan ko non mun na bëre moom mun na bëre trop nag wax dëgg yàlla ñàkk moom mun na bëre mais du man jàpp ma ne combat mook Aliou Seye 2 moom léegi bu nekkoon Aliou Seye junior la sax waaw mais Aliou Seye 2 waaye ku bëreeg ñoom Balla Gaye ay mbapat ah, waaye li muy def waay ah. waaw léeg-léeg nag gis nga làmb ji léeg mooy loolu de léeg-léeg bi nga xam day day tax gars <laughs> nangoo bëri nga xam te ni gars du sax yoonu làmb de loolu am de galère bi nga xam xaalis amatul adduna bi monde bi crise mondiale noonu nekk gars yi ñàkk rek gars yi mbir bañ eh dara. que le meilleur rek mais loolu waaw loolu moo tax nga ne xam nga lu mu mënee xam nga lu mu tële maa ngi lay siyaar nag maa ngi lay siyaar lu bëri Ibou di kër gi ñëpp nag bàyyi ma kenn ah. yaa ngi jëf. non Aliou Seye Aliou dafa xaw a yambare quoi dafa amul caay-caayu làmb amul caay-caayu làmb du ci wax ci du wax du def dara mel ne kinaara ci biir kër rek ah làmb ji il faut ngay jëngal de. yaa ma gën a xam di metti waaw des fois sax nga romb pasatu jàmbur këf ko xaw a am bës noonu comme nu booy jàmm gën yi ñuy def. <laughs> kinaara ah, woye di quoi bu jëloon doomu daanu daaw ah, feree ne ko dem dem seete leneen ay defu ko moom defu ko loolu moo tax. dafa ana balaa nu proposé ko ñàkk jaruñu mu jël ko nu muy def loolu la man bañu ma nga jël booy mais booy jël booy da ngay jël booy bu am coow comme nga gis booy bu am coow nga jël ko te Aliou Seye junior bu jëloon booy am coow yi nga xamante ne man xanaa jël double moteur sax moo ma gënal jël ñàkk jariñu ñàkk jariñu ñàkk jariñu bu muy bindu mbapat dof la doon bindu man mooy loolu amoon na nag début bu kii départ am baaxoon na trop mais après dafa dem ba ci biir di def yëfu dofam yooyu moo ko xaw a tardeel mais moom bu tegoon ay làmbam ci yoon sax instant yi dina bokk parce que départ bu baax la amoon bu boo ko xeebee nag moom mu daan la moom moom ji koy dof la yor boo ko xeebee mu daan la bañ na ko moom dof la doon bindu léegi nii rek lay def ñaq jariñu man xam naa ko bu baax daan na sama deux poulain benn jour benn tournoi xamante nañ bu baax a baax sax mais daal man wax dëgg yàlla Aliou Seye 2 bëggaloon naa ko yeneen combat bu dul yooyu ay Modou Anta sax moo tane woon pourquoi pas